asbilahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ñuy topp ci Zen Info TV am nañ mbégte bu baax di teew ci bis bu mag bi nga xamante ni soxna Mamy moo ko wootee di ci sant Serigne Touba waaye di ci sargal alaaji Cheikh Diom Baye mi nga xamante ni si day jànkatu xasaayit boo xamante tubaar tubaarkàlla tey nag ñu ngi fii ci PA yi ànd ak soxna Mamy ci bis bu am solo bi nga xamante ni moom lay taxawal di ci sargal alaaji Cheikh Diom Baye ñu fekk fi soxna si ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. maa lay fay sëñ bi di la sant bu baax ñëwoon tey fekk si soxna mam bi sama rakk sama xarit sama doomu nijaay la sant yàlla rek waaw. Ah, jërëjëf gannaaw bañ la fekkee eh, soxna mami di taxawal bis bu am solo bii nii di ci sargal Alaaji Cheikh Jom Baay ban yëg-yëg nga ci am. waaw Cheikh Diop Mbaye moom kenn du moom kenn du moom ci sama rakk ji macha allah bëgg na ko yëg na ay mbokkam wax dëgg yàlla kenn amul fayam loolu laa ci amoon lu ma doon wax. jërëjëf euh, mbokki Zinguer Info euh, ba tey ñu ngi leen di toppal ci li nga xamante ne moo xew fii ci PA yi di bis bu am solo bi nga xam ni soxna Mamy moom lay def di ci sargal alaaji Cheikh Diom topp leen incha allah ñu taatante leen kàddu yi nga xamante ne si mooy rote fii nga xamante ne mooy ci Touba PA yi